am mbokku internet ibakan TV tay mom vraiment dañu am gan bu reuy waaw gan bu reuy reuy reuy rëy ñu am vraiment da top na ko lu mot 1 mois xam nga mu nekkon nak ci combat soq bi ak franc vraiment mu jëlon temps yëpp mu ne mon nak ak nu mu mënti démé tamit dinañu waxtaan tay nak mu jox ma rendez-vous fi ci atelier wu entreprise aladji Mbay ah, tay nak ñu wara def waxtaan bu yaatu parce que bu mu waxtaan ak mom fi xamna dañuy tejj dañ koy bàyyi mu noppalu jël ay vacances am tuuti waaw comme ñëpp quoi euh, Ama nuyu naa la. waaw maa ngi jàmm bu baax a baax Iba Kane. moom la lay ñaanal taw féex. Mhm. dina ñaanal sa site bii ngay dugg. Mm. yàlla suñu borom defal jàmm. ñun suñu dugg mm. yëpp. amiin amiin yàlla suñu borom defal la bu baax a baax. Mm. sant yàlla bu baax a baax di mm-hmm. wa sallam. Mm-hmm. di suñu ñaari waajur bu baax a baax. Mm-hmm. di sant nag rawatina Pikine mu ngi nekk. waaw di leen sant bu baax a baax di leen baalu àq. xam na waaw yàlla fi jàmm sax. amiin amiin xam nga di ñaan si jamono Serigne Fallou yëpp. di ñaan sama Serigne Serigne Abdou Karim Mbacke yàlla suñu borom defal jàmm. ñaanal Serigne Saliou Mbacke yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na mm. suñu borom xaare àjjana suñu yaakaar tey ëllëg mm. ama di gërëm ñëpp mm. waaw rawatina nag place bi dama fekk muy place Alaaji Mbay waaw ama di ko ñaan yàlla na ko defal jàmm ñu si bëgg rek yàlla na ko suñu borom defal ah, sa copain Moussa Dioum gaañu loolu nan nga ko dundee woon waaw Moussa Dioum ma muy gaañ nag nekkuma fi woon maa ngi woon si préparation ah. Moussa Dioum mun naa la suñu kër la defee lépp wax dëgg yàlla maa ngi far nekkee xale si mbaaru sin mm-hmm. Euh, bañ naa ko da ngay jënd écrit Pikine dafa jooy jooy métti boobu yaayam sax moo tax mu jénn mhm. maa ngi dégg si na ko sa yaay lu mu bëgg rek topp ko si dëgg la dëgg yàlla mu doon góor boo xam ni mhm. di fàllaay mhm. waajur moo tax mu jëlee ko mu jëlee ko dañ koy yàlla ko suñu borom xaaree àjjana amiin amiin yàlla rëcc lu mu doon defee ah, ah, lu mu doon defee si àdduna yàlla ko suñu borom xaaree àjjana amiin amiin ci euh, keroog tamit euh, sa benn copain génn àdduna si combat soq franc boobu tamit dund nan ko dundee tamit. waaw da rek. tamit ah, ah. yàlla suñu borom moom kenn du xëccoo moom. dëgg la waaw na trop tamit. Mm-hmm. dañuy am na xolu mu rek. ñu mm-hmm. waa ñëpp xam mm-hmm. di di masawu coono seen waa kër. di leen boo ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm. maam bu mu fi bàyyi. waaw yàlla na ko suñu borom def jàmm yàlla na suñu borom teg loxo. amiin amiin mu mën a eggaleeg ah, dañuy dugg euh, nga nekk xale lan moo la dugal si làmb Ama. ak ak ba ñaata at nga commencé yow xam xàmmee takk ngemb waaw lu ma dugal si làmb mooy leen hmm. la football laa ko doon mën football hmm. laa ko doon siiwul hmm. sama papa yóbbu na ma gin ah, Gambie deux ans ma doon mbër waaw ma ñëwaat dama football deux ans Gambie xam na après mu jóg ma Guinée ma def fa deux ans si laa ñëwee na ma war a may takk ngemb takk ngemb yow ban ban ah, attaquant nga wala milieu terrain non man kii laa woon euh, kii laa woon militaire laa woon. militaire laa woon laal. joué nga kade kade cosaan. non si de police laa jotoon rang nag. waaw rang di fois euh, joxe fois euh, dem bay waay football la après sama papa ma jël sama décision papa la. danaa uh-huh. mujjee doon bëri. da nga doon mujjee doon bëri. boobu ñaataat nga am. ma xool boobu ay 15 ans. 15 hmm. ans 14 ans yooyu. 15 ans 14 ans. Hmm. yaa ngi fàttaliwu ngay njëkk a takk ngeem ba la woon. waaw a takk gudd kër la sondeel. Hmm, sondeel bii boo ko Ah. moom laa njëkk a bëreel tournoi. kan kan sondeel sondeel mm-hmm. moom nga njëkk a bëreel tournoi. waaw buñu ko ñoom xaarim Sarr. waaw boobu sax du ma fàtte sama ah, papa Bale moo ko doon arbitre. moo ko doon arbitre maa ngi arbitre di ree di ma ree parce que boobu xale laa woon. waaw muy ree ah. noonu. gëmul woon ne di nga nekk mbër xanaa. non gëmoon na ko nag. moom nag sa moo doon wax naa leen. Mm-hmm. benn wax naa leen zil champion la parti champion la. Mm-hmm. waaye caat mooy moo moo moo mooy uti kër gi. bu ma dawalee 4-4. waaw ah, su ma doonee kan si ah, kii moo tax aama moo tax aama moo tax ah, moo tax nag oto bu ma njëkk a am ma jël ko moom comme que newu fi gaañu hmm. ma jël may ko suñu balde bi parce que waxam doon ma koy defaral après bi nga bëreeg sondeel su sa premier combat ak sondeel boobu ku daan tournoi la woon waaw tournoi ay ñoom bàcc seraan ñëpp si doon bëri maa ko hmm. ba fan nga yem tournoi boobu tournoi après tournoi bi non dañ doon nii rek. waaw ah. dañ doon nekk xale. waaw tëkkunte rek bëri na mooy loolu. waaw ah, daaw teguñu premier vrai tournoi nag ban la. sama vrai vrai vrai vrai tournoi vrai tournoi Tëngéej la nag. Tëngéej waaw Tëngéej demoon naa ba final. waaw après nag moom Mamadou mujjee toj. Uh-huh. après asalem euh, H&M tamit bëri naa fa. maa ngi sos suñu yor bi ñu doon wax te uh-huh. mbapat du yàqu. mbapat mm-hmm. ah, yi mbapat yi da doon yàq lu bëri. waaw tëgg laa doon ëpp nag lu ma doon bëree. Uh-huh. ak benn barak. ak benn barak ngir nag dernier mois ba may waaye dugg si arène nag. laa uh-huh. commencé mbapat. nga fa. parcelle waaw parcelle bëri naa la. waaw bu bëri na coow ba léegi nit ñi dañ koy wax waaw bëri woon na coow moom. Ah. bëri woon na coow dëgg yàlla. wax dëgg yàlla ah. bokkul nag lu ma gën a def mbër. waaw ah, boobu. waaw parce que moom moom booy Guinée ñoo waroon bëri. waaw. après ma dugg si salle bi fekk war a petit cas kon bi dugg si salle bi. ñu hmm. hmm. nekk si lu ma war a nekk nag boobu jour boobu ma daanee nag laa siisu nag. dëgg dëgg dëgg nag ñëw sama papa ne ko la bëgg mu ne ma bër jour boobu laa commencé entraînement. mbapat boobu biir ba terrain parcelle la woon. waaw koñu Modou Lo. koñu Modou Lo hmm. fi ay booru ban heure ay mm, trois heures. ay deux deux heures. deux heures nga la ñu convoqué woon ba pare cinq waaw am na suba ñu dem ba ay deux heures doo ko bëri. deux heures du hmm. a bëri ak Modou Lo. waaw mais tamit ah, ah. naa xiifoon nga de jour boobu. mais banaa la ah. lu waroon am la. nekkul loolu tax mu daan ma nekkul hmm. dara. léegi léegi arbitre sifflé. am sa bëri nañ nag. bëri nañ bëri bëri xam nga tey. Mm-hmm. moom mooy toog naan combat bu gaaw la parce que mm-hmm. na ma franchement jëli bu mm-hmm. doon nag cent pour cent taqe ngeen rek nekk si ba léegi. ban façon jëli bu rëy la la daan nu mu demee. dafa ma kii dafa ma ma ah, dafa jël sama tànk. waaw ma daw kii mu ah, mu kii ma waaw daw wër ma ndomb. wër la ndomb. par ma def kàddaa bi. depuis boobu euh, rek affaire bi métti la. non nekkul daan bi ma métti parce que champion mooy bëre mooy daanu. waaw waaye dama xam ne am naa cër si làmb. Mm. Mm. kon boobu moo nekk mujjee nekk sa combat am mbapat. non non mujjul nekk sama combat mbapat après mm. bëriwaat naa ay mbapat. bëriwaat nga ay mbapat waaye boobu moo njëkk a nekk bu euh, moom a bëri combat nag mu. combat moom nga jàngat si lu bari waaw jàng naa si bëri. Uh-huh. jàng naa si lu bëri bëri wax dëgg ñan nga àndaloon jour boobu. alala Maalo Seras mooy anti Fala yëpp a nañu. Uh-huh. Maalo Seras. Maalo yor na photo bi sax. Uh-huh. Maalo yor na photo bi maa ngi xool Maalo 37 la ma defar moom la ñu ko defaral 37 37. maa ngi faal bu si jógu nekk. mooy studio yu nekk santali ba ñoo ñu photo waaw foofu laa photo woo sax tiset bi mhm. mhm. foofu nga photo tiset bi après ñu ànd noonu mhm. yóbbu photo bi ba jàmm gën waaw jóge jàmm gën dem benn barak dem benn barak mais combat boobu euh, ci bi si biir combat moom amul coow amul débordement non amul benn coow parce que moom loolu dafa toog ba arbitre di waaye sifle rek mu ñëw puus après bëri ah. mais instant boobu yoo hmm. ah. rek. mais yow bu ngay bëree ji Ama lañ la doon woo wala caat départ boobu. départ boobu boobu départ boobu caat Fallaye wala Lengs. Lengs ah la doon woowee. wala gars yi naan Lengs Pico Pago. Lengs. Lengs Pico Pago. ah Lengs Pico Pago. moom moo ko animal la. Ah, ah. Mm-hmm. Ah, animal la ñu tuddee woon la Lengs. nga jóge foofu le lendemain nga ñëw wax paa ne ma vraiment da nga bëgg jël carrière. dimanche lundi bi. naa mhm. ñëw na ko bëri na bëgg la nekk si. nekk si boobu sax ñu ngi woon entraînement bu baax a baax. waaw daw rek laa doon def. bu mhm. ma fàttee am na seen ñooñu ñëpp dañu mënoon ñëw naa ma ñëwal bu dee booy def benn sax na def benn. Mhm. après lu mu yàgg yàgg dina ñëw. loolu si nga jëlee benn croix teg ko si Modou loo xam naa. benn benn benn croix daal non dama xam ni combat bi war naa ko war nañoo bëri xam hmm. naa ne ba may daan xale rek xale la xale ci ku xale moo ma jàpp uh-huh. xam naa ci moo ma jàpp mu daan kii daal mu mënuma kii daan mu mënuma moom naa ko moom xam naa ne moom laa xam kii daan mu mënuma kii daan mu doole uh-huh. nekk fu mu a nekk du ma mënal dara hmm,